ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel euh, di am mbégte bu baax a baax nag ci ñëwaat ci seen émission bu am solo bi nga xam ne mooy émission gàggantiku te seen seen GMT TV bu dayru ko xaddi ko tëkkëj ma di leen ko defal ci weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le 22 émission bi nag dañ ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañ leen di jébbal ay laaj ay laaj yoo xam ne dafay aju ci diine yoo xam ne danañu jëriñ suñu diine keroog muy suñu mbiri àddina euh, tey jii nag ñu amaat mbégte bu baax a baax a baax ñëw fii ci Darou Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir euh, daral ko ci jataay bi fas yéene koo jébbal suñuy laaj yi gàllankoor yi euh, tey jii. nag moom laaj yi ñu am dafay aju ci weeru tedd yi ñu dugg muy weeru tabaski ak bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy feetu wax dëgg la adha muy. julli tabaski maanaam feet yi feetu tabaski daal ak lu ci aju mm-hmm. moo tax euh, euh, laaj yi nga xam ne am nañ ko fi sëriñ bi laaj bi ci njëkk mm-hmm. mooy euh, bëggoon nañoo xam daal lan mooy tabaski mm-hmm. tabaski ci boppam mooy lan aouzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Euh, sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay maa ngi nuyu mbokk yi nga àndal yëpp sëriñ Abdul Xaadir di leen siyaare di rafetlu seen liggéey ñaan suñu borom defal ñu tawfiq noonu nga ko waxee bis yu ñu nekk yàlla defal ñu ci dimbal ba li ci nekk ci aw yëpp ñu mën ko màng waaw suñ doon wax de tabaski de ak jaamu yàlla la loo xam ne tuur deret nga xam ne ci lislaam la bokk bokk ci shaira la min shair lislaam fuqaa yi dañuy wax sax ne bu amoon ak dëkk ñépp lànk ne duñ ko def dañuy sant ilimaan imaamul muslimin na mu jël ngànnaay jëme leen sañ sa woote jihaad ngir jàmmaarloog ñu dëkk bu maase lank ci ne duñ tabaski nit ñi di ko def par kenn nag sunna la moom képp koo xam ne charte daf ki daje na ci moom sunna la ci moom muy jaamu yàlla gu amoo solo goo xam ne am na cosaan ci diine loolu nag cosaan la dëgg-dëgg mu bàyyi ko ci maam Ibrahima alayhi salaam la xewoon digg mu boromam bëgg rendi doomam yàlla jote ko zibhun azim mu des di sunna soo xam ne bii yonent yàlla Muhammad ñëwee sallallahu alayhi wa sallam sunu borom digal ko mu yeesal sunna soosu kon sunna maam Ibrahima lañ ci dundal muy jaamu yàlla ak tur deret xam ne. at mu jot lay am fukkeelu fan ci weeru zul xijja saa bu dikkee fu jullit mën nekk ci adduna ñu sant ko bu amee mu tuur daret eh, ngir jaamu ko yàlla tuur daret ngir ko yàlla loolu seeblu at mooy tabaski su ko defee kon eh, beneen laaj bi ñu bi ñuy jébbal comme bi ñu leeralee lan mooy tabaski hmm. léegi nag lan mooy cosaanam ci diine cosaan waaw cosaan li ci diine juñu naa ko ci biir wax jooju moo di ne dundal sunnas maam Ibrahima su yàgg la maam Ibrahima dafa gëntoon ñu rayloo ko doomam fekk mu toog lu yàgg amul doom ju dul jenn muy Ismaila alayhi salaam mu daal di wéy ndigal ndax géntu yonentu wax yu la ñu ko xamee ba mu demee bay wéyal ndigal nag fekk suñu borom mooy doon nattu nattu na doom ji nattu baay bi ba mu doom ji da ko ne defal la su borom ndigal waxal maa tuumar da nga fekk ma nekk muñ muñkat yaa ba ti yaa ba ti loolu misaal la ci dégg ndigal it waaw yàlla békki ñoom wane na jàll nañ ci natt bi jote ko am xar moo xam ne wax nañ ni aljanna la jóge digal maam ibrahima alayhi salaam mu rendi ko jaamoo ko yàlla sante ko yàlla bi yàlla muhammad ñu sant ko mu jottali mu wéyal ndigal mu jot ñu sant jullit yi ñu rey am xar ibrahima salaam daan na ko def di ren di am xar ngir moom ak njabootam ren meneen ngir ñim bëgg tabaski te mënuñoo tabaski ci xeet wi kon sunna soosu la eh, soo xam ne kon Ibrahima alayhi salaam mi abul anbiya moom lañ ko déggaloon digaloon yeesalaat ko ci yonent yàlla Muhammad mu digal ko xeet bi. jërëjëf sëriñ bi eh, kon cosaan li leer na su ko defee nag ñi nga xam ne dañoo tënk ci lislaam maanaam eh, lan mooy aparté <laughs> mu maanaam nga tabaski jaamu yàlla la goo xam ne ko waxee tur deret la ci jiitu mooy ñu xam kan lañ ko sant mooy ko man ki ko man mooy kan mooy koo xam ne li jën jënne xarum tabaski mi du fa bàyyi ab góom ci biir at mi waaw koo xam daal ci misaal xam nga ne tey at mii liñ ci war a dunde lépp yemb na li ngay dépassé bu fekkee kuy fay lu yaas nga bu dee kuy fay ndox kuy fay ko yëpp daal yemb na mu des lu matum xar tabaski sunna la ci waaye koo xam ne nag matuloo loolu tabaski nekkatu sunna ci yow kon li jiitu ci li ñu war a xam mooy sunna la su war ku ko man war goo xam ne man goo xam ne lor nekku ci waaye waxuñ koo xam ne day dajalaatu ay weer yu mu war a dund kanam jënde kom xar mu des fa dim góom ay bor topp ko ci wala yeneen topp ko ci yoo xam du xam kañ la koy lijjanti kooku du sunna ci moom loolu baax na mu leer ki mu war mooy ku man man-man boo xam ne laa tuji xif la ñuy wax du la sonal ci biir at mi daal ki am xaalis dëgg nga xam ne moom dépassu déwénam mi ngi nii tege waaye nag desal na leen loo xam ne xëy na ginnaaw déwén la kooku moom mu génne ca sunu la ci moom loolu ñu wax nag képp kum daje ci moom muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw donte jirim la bu yi dajee ci moom sunna la mu tabaski am jirim bu ay waajuram faatu bàyyi ko fi mu yor alal ju bari noonu loolu lépp xaj bu tabaski jotee bëgg nañu ay kilifa tabaskil ko ndax sunna ndax mën na ko su booba soxna si ci biir kër gi am ay moyens boppam di liggéey wala mu am alal yoo xam ne li ñu wax daje na ci moom sunna la bu tabaski dikkee mu tuur deret mooy itam gir dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom yàpp naa bokk na ci li jiitu ci lu war a xam kon du ñëpp la war euh, mbooloo mu bari boo leen dajale woon ñoom cee waruñ ñëw lay doon waaye nag am na leen dimbalit mooy mën na si cee yóbbaale ñeneen masalan tey yow sa biir kër boroom kër bu tabaskee mën naa yóbbaale ñu bari ci biir këram mooy njaboot gépp mën na yóbbaale dañ ci sart rek ki ngay yóbbaale bokk ci sa njaboot ngeen bokk dëkk te di ko dundal te bokk sa mbokk am na mbokk dëgg gu boole wala wala sa soxna la te yéen bokk dëkk nga di ko dundal yow mën ngaa wut sam xar rende ko ngir yow sa bopp ak ñooñu ñëpp am tuyaaba donte ci soxna yi wala ci njaboot gi am na ci koo xam ne amoon na alal ba tabaski nekk sunna ci moom boo ko yéenewaalee mu wàcc ko am tuyaaba kon loolu bokk na ci jëriñam menn xar mën naa ñi ci njaboot gépp du tee nag képp ku ko man moom sunna la ci bokk boo bokk boo ko mënee def nga def ko moo gën waaye nag mënees na ci yóbbaale ni ma ko waxee waaye sart bi mooy lii rek mooy ki nga yóbbaale daal da ngeen bokk dëkk sa biir kër la nekk yaa koy dundal donte dundal gi warul la sa rakk la sa dafay bàyyi la wala yaa koy dundal sa biir la dëkk sa kër la dëkk te sa mbokk te yee yóbbaale gi it ci yool bi la bokk na ci li ñuy tere cotiser ku ne joxe dara ci mos a Mali bi ñu nekk booy ni daje woon ku ne cotiser jënd am xar. kenn ci ñoom amul tabaski tuyaaba yi lañuy bokk waaye njëg gi dee bokk loolu mooy mazhabu imam Malik waaye nit it mën naa amul xaramit dajale ñeneen nit yéene leen ko moom bu ci bokkut sartatuñ ci benn sart bu ko neexoon dajale mbooloo yéene leen ko rayu xar mi ni leen ngir diw diw ñoo ñëpp dañ am tuyaaba yi tabaski waaye mooy moom xam naa wala foofu da am na sew sew bu ci bu ma ci bëgg laaj mooy da gis ne ci dëkk yi sax mi ngi fiy tàmbali dëkki taax yi dafay mel ni boroom kër bii tabaski daal soxna si lay lay lay tabaski maa lay jëndal xar mi yaa ngi gis ne sax dafay mel ne soxna si moom moo moom tabaski maanaam jàppul ne soxna si moom jàppul ne moom ci boppam ni ni kër bi ni ko tabaski waree da ko waree doon dafa jàpp ne moom xar bi jënd moo tax ñu jënd yooyu tamit mat naa def ay ay ay laaj xam nga sëñ Abdou fii dafa am jaamu yàlla yu bari aada da caa lalu ba not ca tabaski ci la bokk ñi ëpp ci ñu koy def waru leen ñu bari ñu war defuñ ñu ndax aada ñu bari jàpp nañ tabaski waru leen loolu moo waral ku am soxna yit foofu nga ne tabaski soxna si tax tabaski ko day mel ni soxna si moom moom moom moom gàtt bi moom tabaski mi ndax ci dëgg-dëgg moo tax ñu jënd ko ñoom warut demee noonu nag ñu war a demee mooy yow yow la war yaa am jëndal li nga war a def nga def ko yéene ca ñooñu incha allah taala ñoom ñëpp danañ am tuyaaba ci tur deret bokkee ci ñooñu waaye nag yow yaa koy jënd amaa nag yow mu war la nga jëndal keneen bàyyi sa bopp loolu jamootoo yàlla léegi mbiri aada la li ñu topp loolu jàpp na lu mata euh, bàyyi xel la li nga wax loom am solo la nit ñi dañ koy dañ dañ koy fonk lool daanaka sax dañ la ko wax seenu seenu soxna la ñuy tabaskil soxna si du jàpp moom xarit na ku neex la koy def sab ko ay saamam euh, dégg nga génne fàllaray diw dégg nga tànkub diw euh, xolub diw lupub diw lépp daanaka dañ ko seetle ba mu jeex te xamuñu ne tabaski jaamu yàlla la wari su ko saraxe lekk ak saraxe ak denc islam tere woon na denc ku lóob ñetti fan lóob ñetti fan waaye ginnaaw bi moo ko daganal rawatina bi nga xam ne léegi jumtuwaay denc du yàq am na bu njëkk nit ñi néew doole dañ fi daan nekk ñu bañ ñu di ko denc ñooñu di loru waaye eh, am maa nag def ko ay cëri yoo xam ne cëri aada la yoo xam ne kenn xamul nu mu tudd lool moom jar naa moytu ndax da xam ne ak jaamu yàlla la ngir ñu am ci tuyaaba ji seenu dañ koy sellal ngir yàlla loolu lu ñu mat a bàyyi xel la kon su ko defee jëmmi tabaski ci boppam maanaa leeral nga ñu àtte bi xam naa ñàkkul am na ay farata ak ay ay sunna waaye eh, eh, yéen lañ ci tàmm. waaw xam nga li ci ëpp solo. xasee xam ne sunna la ci ab jullit bu ko man man-man boobu ñu wax. ñu leeral it xar moo ci gën. di gën a tam mooy xar. bay bëy ginnaawam nag ginnaawam gileem. mooy safaanub hadiyu. hadiyu gileem eh, nag gileem gileemay jiitu gàtt mujj waaye tabaski moom gàtt jiitu. ñu xam ne kon xar ak bëy ci tabaski na xam mbokk yi dañoo yem koo ni diw bëy lay tabaski mu yuuxu am na koo xam ne dama ko ne wut bëy mu ne ma ni ma toll ci dëkk bi ni ma ci dëkk bi nga naan dangay wut bëy waaw moo di ne e, bàyyiwuñ xel ne jaamu yàlla la jaamu yàlla goo xam ne yàlla ko santaane waxuma la bëy waaye am na barab bu ma xam boo xam ne kenn ñi mu fa andim xar ci kër ga te du mu weex jëlal la nag mu doon bëy wala leneen fa faaw xar mu góor ngi indi mu weex day amee béjjën xam nga loolu nag sëñ Abdoulaye jàpp naa ne aada ju not ji waaye bu leeroon ne jaamu yàlla goo xam ne xar mi bu mosee am bu matee am at mat sëkk rek donte tegalul benn bis at mat sëkk bu xasee am hmm, mën na tabaski bu dee bay bu amee at ba tegal weer bu dee nag day wax ñetti at bu dee gileem juróomi at kon mel na ne jaamu yàlla la goo xam ne duuf gaag doon góor gaag eh, am ay béjjën yëpp nag luñ taamu la ndax looy defal yàlla lu mu gën a mat moo ci gën waaye nag du ci sart kon li am solo mooy na na mat at mi na mat bu xasee mat at rek baax na mu doon xar moo gën soo ko amul am béy baax na xar mu góor a gën xar mu jigéen dëgg boo amul loolu béyu góor béyu jigéen noonu la ñu ko topp kon yooyu yëpp mën naa tabaski yooyu bu amul benn wala amoo ko sax wàcc na la foofu it jar naa bàyyi loo xel mbokk yi nit ñi li ñuy daj ngir bu tabaski dikkee jàmbur yëpp yenn lay doon amaguma am xar ku amagutum xar xar wàcc na ko bu tabaski accès ñu ngi jàpp ne buñ ko jàppee woon ni tabaski moog aj màkka joxe asaka ñooyam te jaamu yàlla lañ yoo xam ne ki man la war jàpp naa ne kenn du ne tey tey ma forcé génne asaka hmm? kon wari su forcé di di di di aji màkka wara suta forcé di tabaski waaw mm-hmm, mm-hmm. ah, buñ ko yéegaloon foofu euh, Abdullah ibn Abbas tabaski mos naa jot mu mu jox su ngóoram mm-hmm. ab xaalis ne ko dama jëndal ma yàpp te nag koo dajal ne ko lii mooy tabaski ibn Abbas waaw dem jënd yàpp pese toog ndax boobu bëgg naa ñu xam ni nit ñi day mel lii xew nii yàgg naa am yàgg am maanaam ñu ñu ci dugal adduna ba jàpp ne leneen mënta baax moom mu tokk tool noonu saxaabi wu tool noonu di saxaabi bàyyam di saxaabi ñu tedd lool muy jënd lu yàpp bisu tabaski ba noppi yëbu ci jënd gi dane koo dajeel nee ko lii muy tabaski Ibnu Abbaas yàpp yii peese kilo yi peese ci la fa séen tabaski loolu buñ ko déggee noonu dana noppale waaye dañ cee laxas lu ci bokk ay sëy ci tas ay ngor ngi ci yàqu ndax lan te ba indiwul wala moom andi gënalu gënalul gënalul ki ko indi loolu jàpp naa ne nag war na weesu foofu moom xam ne ah jaamu yàlla la ki ko mën lañ ko sant mhm. ki ko mënul na mel ne yow mi génniwul asaka ndax amu alal ju génn asaka wàññiwul dara mhm. wàññiwul dara ci cër bi nga amit mhm. waaw loolu daal sëñ bi jàpp naa ne baax nañu xam ko ci bu defee na doon xar mu mucc ci ayib yi dafa yoo xam ne moom bu amee ci xar mi buy dox di soox ba nga xam ne bu ànd ak moroom ñu raw ko bu làppee ba nga xam dara ci garis nekku ci mënul tabaski bu amee béjjën yi dagg di naaj ci loolu wéradi la naaj ci nga xam ne moom da feebar bu wéroon nag ñàkki béjjën téewutu mënul tabaski waaye nag li ñuy bañ mooy bu go am mu doon góom buy naaj te wéragu day jàngoro joo xam ne di tax da jeexital ci yàpp waaw xeet mel noonu lañ ci moytulu na doon it gàtt maanaam li ñuy tuddee juru kon ci masa bu ma lekk ginaar day ko tabaski dee su tabaski kéwél yooyu nga xam ne nekkuñ juri kër mm-hmm. juri kër mooy bahimatul anaam mm-hmm. gëlem ak nag la ak gàtt muñ xarat bay mm-hmm. kon ci lañ koy tànn loolu mooy masula nga dem gis kuy jënd xar di di si di ko fóon ak fóon gimiñ geek siñal bëñ <coughs> na fóon gi am na xet goo xam ne it dañuy wax ne bu bu amee yenn xet yi wéra di la gu ci biir ba day jeexital ci yàpp yi day tax du baax moo tax xam naa ñi xam xar ñooy bàyyi xel loolu. Mm-hmm. waaw yëpp baax na nag. Mm-hmm. am na xet gu muy xeeñ goo xam ne ayib la. Mm-hmm. waaw waaw am na fu genn bi dagg it dagg gu ëpp loolu it ayib la. loo xam ne day tax du mat du mat ci tabaski. kon su ko defee euh, gàtt bi noonu la war a mel kon jullit bi nga xam ne moo euh, jënd gàtt boobu ngir fas ci yéene def jaamu yàlla googu mm. ban waxtu nag la war a la war a lottal gàtt boobu ak nuñ koy lottale waaw xam nga. lawetal bisu tabaski tabaski ñetti fan la ci misaal buñ jàppoon ne tabaski gi gaaw la ab gaaw la masalan gaaw di biir altine ñetti fan yi mooy nekk ñetti fan yi tabaski fukkeelu fan bi moo ci jiitu mooy bi gën waxtoom nag mooy ilimaan moom su jullee ba nopp ba xutba mooy waxtu rendem ñi ci des nag bu ilimaan rendem ba nopp mooy seen waxtu rendem ci mazhab malik bi ñu nekk ku njëkk ren di imaam amuloo am tabaski hmm. ko yàpp nga am kon faaw ñu bàyyi xel loolu ci jullikaay ba ñu xaar ba ilimaan julli ba noppi ba xutba ba ren di ku dem këram xam ne imaam ren di moom bis bu njëkk bi loolu lañ ci sàtt kon yor yor buñ jullee ba xutba ba noppi hmm. koo xam ne nag amoo ko woon bis boobu fukki fan ak benn nga am ko bu asamaan xasee sedd rek mën nga ko rendi moom fajar xasee weesu rek guddi daal la ñuy tere kenn tabaski guddi mm. boobaa saatatuñ ci imam der ndax bis yooyu amul julli mm. kon bis yooyu ñaareel bi ak ñetteel bi yëpp mm. ba jant bu xasee soon ak ci bisu ñetteel bi tabaski faat na ku ko amutoon wala mënoo ko woon boo ko mën naa tey déwée na jàmm xëy na wàcc na mm-hmm. ñetti fan yooyu nag ci man moom mm-hmm. mën naa réer fukk fukkeelu fan bi ci suba sa mu feeñ mën na ko tabaski ndig bu asamaan seetee mu rendi ko foofu xëy na rendi gi ñu bàyyi xel ne hmm. dañoo bëgg ki koy rendi doon ko yow hmm. li sunna mooy yow nga rendil ko sunna moom tabaski bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan rendil boppam xaram hmm. sunna la koo xam ne mënoo ko lott ci mënu ko ki nga koy def loo nay ku la doy ci diini ñu bañ defaloo ko nit koo xam ne diinam doy la ndax jaamu yàlla la boo koy kala cey wuutu na doy bul jot ay waaxit yoo jot rek ne ko ay rendil ma xar li ma ta bàyyi xel la boo nee ba mënoo ko daal du ñàkk xëy na ci koñ bi kilifa ab sëñ daara wala nit ku baax ko xam ma ngi ci bi nga woo ko mu lewetalal la du sart nag ngay teg sa loxo ci ndigam ak a yooyu ndax nit ki mën naa ne feneen sax nit ne fii rendil ko xarab yéene ko xëy na loolu ci aada la bokk ñu jàpp ne faaw euh, ki ki kii rendul day ñëw teg loxo ci kaw kii ren bi hmm. ngir ñoo xam ne moom xar mi ay jàppal ak ay nangam yëpp it nag suñu aada la waaye hmm. xanaa moytu daal kuy ren di lu ëpp mel ni xar xar yi di gisante hmm. waaw yonent daa waxoon ne eh, bu ngeen dafee dara nañ ko rafetal ida waxtum fa ahsinu sibha waaw na ngeen daas paake ba mu ñëw noppal li ngeen di rendi kon paake bu ñëw bii de sit bu rendi ci kanam lenn mu moroom di ko gis loolu luy tëggin bu kenn fees am gàtt te séddu waaw xam nga léeg-léeg suñu muso bi dañuy jàkkamte ba buñ kii rek da tàmbali bëgg a gaaw ci la ko yooyu waaye nañ bay ba mu sedd ndax loolu métital la fii ak sedd seddagut day yëg métit bi waaw dañuy tere tàmbali di ko fees te fekk seddagut waaw deret jooju it xëy na sax léegi nañ bàyyi nañ ko mu njëkk di ko taqal ci seen yaram nañ xam ne deret jooju sobe la yëpp joo xam ne am nàcc nàcc moo ko génne sobe kon boobaa di ko taqal fenn ngir ne tabaski la déedéet waaw gi tuur nga ko ngir yàlla waaw loolu lañ ci soxla bu ko loolu jàpp naa ne bokk na ci lii liñ ci mat a bàyyi xel bu defee nag xar mi dis na ci lekk dis na ci sarax sarax bi mën naa doon lu ñorut mën naa doon ñu togg waaw dina eh, eh, yi an ak ak eh, luñ togg ba noppi mën ngaa togg rek sarax ñi ñu bàyyi xel nag ñaar sarax ak maye leen wutale bokkuñ sarax ku ko aajowoo lañ koy defal koo xam ne xam nga ne këram yu amul lu lekk mu indi ren bi nga jib jox ko lool sarax la sa mbokk moo xam ne mën naa am sax moom ëpp leen xar nag loolu hadiye la hadiye dañ koy joxe bokkuñ ay jubluwaay hadiye ki nga koy jox rafetal seen diggante ak rataxal ko la sarax nag tuyaaba ngay wut moom ku ko aajowoo nga koy jox kon bëgg nañ saraxe bëgg nañ maye ci ak lekk ci. loolu dañ bëgg ci xar mi ñu defe ko noonu bàyyi xel baaxit ne deesut jaay dara ci xarum tabaski hmm. léppam jaamu yàlla moo tax dañuy tere ki koy feesal sax nga di ko jox ci yàpp yi yox boo xam ak fay la bu ñëwee di la feesal na nga ko fay xaalis bu fekkee da ngeen seq ak fay wala nga fayee ko leneen daal hmm. bu noppee faqir boo xam ne nag daa aajowoo sarax wala bu ko may bu la neexee bu noppi may waaye nag bu mu doon loo xam ne liñ baaxoo gi fi ñoo xam ne fii ku fees xar yaa moom baat ba déedéet fii moom ki fees xarum tabaski moom baat bi tabaski baat bi ci yàpp wi bokk yàpp wi nga xam ne dañ koy jaamoo yàlla kon dee su ko fayee ab liggéeykat kon fay ko xaalis boo ko dee sarax na nga sarax ko der bi it noonu ma nga ko saraxe mën nga ko maye waaye dee su ko a ay ñuy ay ñuy di jënd ay der ñu leen jaay tabaski loolu lu njuumte la bàyyi xel ne tabaski dee su ci jaay dara lépp lu ñuy jaamoo yàlla muy der yi mu yàpp wi loolu it jàpp naa ne mën naa bàyyi xel bu ñuy tabaski jaamu di ko jaamu yàlla jërul yi nag feesal ko ëpp gi nga xam ne ñenn ñi ne ci ëtt yi lañ koy def xëy na am na ci kër yoo xam ne dañoo amul fuñ denc ay xar ñu di ko yow seen mundi kër loolu day xam ne ngànt la waaye bëgg a wane saam xar ni la toll bokk na ci li mu jur gone yi xeexoo ci mbedd yi ne suñ xaram suñ xara ëpp suñ xara di ci di ci di ci di defante ba jur sax way jur it di daj lu ne ngir andi xar mu xar mu xar mu mel nu ne eh, bu tabaski jiwee lu ne ngay dégg lu ne xese yi ne da nga ko dégg ci mel noonu ngir ku bëgg amu xar te amugu ak pexe yi muy lal di déclarer ay wéré yi yëpp ngir bañ këram tas isaan loolu loolu it nañ bàyyi xel di demul noonu soxna yeeg njaboot yi nañ dimbale way jur yi ci xam ne ak jaamu yàlla goo xam ne ku ko mënut tegul la ko waaye ñi man nañ bàyyi xel ñooñu ñu mel noonu bu ñu reyeete rendeetee nañ jël lu baax jox leen ñu xam li am solo mooy lekk ci bis bi ak béy ci ñu fexe ba ñëpp lekk ñëpp moo tax ñu bëgg ñu ci saraxe kon fu ñu ko defee jaboot yooyu duñ yëg loolu euh, ki nga xam ne tey masala am na ngàntu julli jiwut ba jullee këram da yëg ne dara xewut daa am ngànt rek mm-hmm. bu ñu jàppoon tabaski mi ki ko defut rendi wut ren loolu ko waral mm-hmm. waaye fi ñu ko àggale nag moom dafa jéggi dayoo te boobaa nag day mel ne tuyaaba yi dootu ci bëri mm-hmm. loolu jàpp naa sëñ bi lu ma ta bàyyi xel la su ko defee dafa mel ne eh, laaj bi ci waroon topp bu njuumte yi ci war a moytu dafa mel ni tontu nga ci léegi eh, bëggoon ñoo xam ren di nuñ koy defee maanaam ndax bëri na ci ay njuumte ñoo xam ne xëy na bu ñuy ren di eh, mën naam xamuñ ko maanaam lan moo war a dagg ci xar mi ren di ki wér ak ndax jigéen dina ren di beneen bi laaj bu mujj bi mooy nga ñëwul ñu ci julli gi maanaam ak mm, ni ñi ni ñi ni ñi sonne ci xotti ak yu deme noonu ak euh, julli gi nuñ nuñ koy defee. waaw xam nga rendi moom itam jaamu yàlla la. dañuy mhm. tudd lewetal fexe ba xar dagan na lekk ko ci saa tuub ñu rendi mhm. rendi ko tegu ci yoon. Mhm. rendi nag góor mën na ko jigéen mën na ko sart bi ne nekk mu mayis ko xàmmee nit ko tàggoo sagoom lu mu rendi medd la gone gone gu xamu ko dara lu mu rendi medd la waaye noonu ko xàmmee doon ti baale xagut bu xàmmee xam nañu def jaar fi ñu war a jaar bu rendee mu baax kon góor dana ko def jigéen na ko def bu ñuy rendi xar mi dañu bëgg ñu tëdd tëral ko mu tëddee wetuk càmmooñ bopp bi jublu gànnaar tànk yi jublu saalum yow mi koy rendi nga tiim ko ci sa loxo ndeyjoor liñ bëgg ñu dag ko ci it mooy am na ñaari wadaj ñaari sidit ak xulxoom bi nga xam ne ci la noogee jaar ñett yooyu la ñuy dagg ci xar bopp bi it dara da caa war a des léppi léppi loos wi wërta ne ci ginnaaw war naa des dara loo xam ne day top bopp ba waaw tàggale bopp bi it rafetut nag waaye bu demee ba nga xam ne dagg nga xulxum bi dagg wada ji jàppal ne ren ji mat na daf ko it benn yoon tega ko teg dañ koy bañ allahuma paaka bi wadd wala nga tàmbali ñëwut nga sànni ko jël beneen li bañ mooy mel ne kuy mbugal dagg ba mu neex la nga taxaw naan damay noppalu wala ngay waxtaan boo xasee tàmbali yërëmal li ngay def ida dabaxtum fa axsinu dibxa wala yuxidd ahadukum shafrata wala yurix dabixata la xadis boo waxoon salallahu fexe bu paaka bu ñaw boo xam ne fii tëraloo ko ba tàmbali paaka bu mu génn waaye jàkkaarloo xam ne di ko paaka bi di teggin mu xam ne ci lañ ko nar a ren bu mu doon fexe ba mu xam ne bu ñaw la teg noonu am ñu téye bu dëgërit ndax ñàkk koo téye dana war a léeg-léeg mu rëcc wala mu jóg dafa am yu bari yu ne kon fexe ba téye waaw bismillah allahu akbar boo ko waxut te fàtte ko dana wér boo ko fàttiwu xaa la nga ko wax medd la waaw fekkee ki da ko fàtte moom baax na waaye fekkee moo ko jublu ñu ne ko waxal bismillah mu lànk ne du ko wax bu ren ne medd la ku ren ne ci doq medd la doq ci ren lañ koy ren de kon loolu it bàyyi ko xel baax a baax loolu am na ci solo lool sax nag ñu xamit ne dara jooju ànd ak rend bi sobe la kon bu mën a moytu bu mu taq mbaa fu mu taqit da xam dañ ko war a fóot ba mu set dul loolu déer si mën a julliwaat su ko defee nag ayit niñ ko waxee rendi la ak julli tabaski rendi la dañuy julli dañoo bëgg bu ñu xëyee suba teel bis boobu dañoo bëgg ñëpp koo xam ne da ngaa tabaski li jiitu sax mooy fukki fan yëpp mën na bàyyi xel seen daal bu mm-hmm. weer tabaski teroo rek bis yu màgg yi tàmbali na dégg nga borom xoox yu bari wal fajri wa layaalin ashrin layaalil ashr nee mooy al ashrul awail min dil xijja muy fukki guddi yu njëkk yooyu dañuy wax ne ci at mi ci at mi fukki guddi ramadan ñoo gën a tedd ci at mi waaye fukki bëccëg yi ñoo gën a tedd ci at mi ashrul al ashrul awail ci zulxijja ñoo gën a màgg ci at dañoo bëgg bu dikkee nit ki lu mu doon def ci lu baax mu yokk ko ci bëgg nañ ku leen woor bis yëpp rawatina juróom-ñetteel ba juróom-ñeenteel yow mu tarwee ak yow mu yow mu arafa waaye juróom-ñeent yëpp lañ bëgg ko woor ñaari mbirit ku ko man nara tabaski bu dikkee bu ko def bu ci watu bu ci lawee weer yi xasee teraw islaam moo ko xam ne bu terewtee ku nam ma tabaski bu mu laal kawaram bu laal ay wayam ba julli ba noppi ndax yëpp ay seere lañ bis bi ngay tabaski yooyu na ci seeram da lay seere moom xew kon dañ bëgg nga julli bu ñëw ba rendi door a wat kawar yooyu kon dañoo bëgg ni mu ci watu bu ci lebi bu aajowoo yooyu balaa weeroo teru woon ko defaat bu weeroo xasee teru boo ko defaat am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ génn di kabbar di kabbar yàlla dem ci jaay yi wax allahu akbar ndax bari lu ñu tudd bàkk yàlla loolu borom xam-xam yu bari saxal nañ ko bu julli gi ñëwee it nag julli gi yoo lañ ko def bu jant fenkee ba dox lu tolloog misaal daal fi ne trente minutes bu jant xasee génn ginnaaw bu jant fenkee foofu la tàmbalee tabaski dañuy bëgg mu gën a teel loolu safaanoo bëgg it bisu tabaski nam ma tabaski boo xëyee na nga jàpp maanaam bu fajar xasee jot bu lekk te bul naan ba julli ji ba ñëw ba ñu di gàtt bi nga dog ci gàtt bi mel ne teraanga ju yàlla jox jaam ñu bëgg bis boobu lañ ci njëkk jëfandiku bàyyi ko ci gàtt bi mooy safaanu koré mi nga xam ne yàlla moo ne woon démb woor leen tey mu ne wari leen ñu bëgg a teel a feeñal ndigal liñ bëgg ñu def mooy nañ ndékki bala ñoo julli fii dañu bëgg na ñu yeexe ndékki li ba julli ji ba ñëw ren di gàtt waaw dog cere si sunu si yonent bay waaye nag ku am pexe bu soo bu am pexe mën a mën a mën a mën a gaaw defar leneen it tërëwuñ ko li am solo mooy la ngay dogee na bàyyi ko ci gàtt bi xëy nag defar res yi moo gën a jàppandi te sunu ku baax kee sallallahu alayhi wa sallam kon loolu it ñu bàyyi ko xel te xam ci ci ji baax yi la bokk ku ne boobaa nag euh, julli gi nañ ko xam ne ñëpp lañ bëgg ñu dem am na ci saxaaba soxna yi ko waxoon ne dañ ñu daan digal ñu dem ci jullikaay ba donte sax mënuñoo julli waaye dañuy teewe ñaan gi dañuy beeru ñoon di teewe ñaan gi bu ñuy ñaan ñaan bu ñuy kàbbar ñu kàbbar donte mënuñoo julli kon mel na ne bëgg na ñëpp di ko teewe xanaa gone gu xamul gi foofu ku yàq waaye ku dul rek ndax boo gisee ñu taamu ab jullikaay musalla mooy barab bu yaatu boo xam ne ñëpp dëkk bépp dañ fee xaj daanaka adduna dox ak jafe tam ba tax jullikaay di bari ci dëkk bu njëkk dëkk benn jullikaay fay am dañuy génn ci biti ñëpp teew mbooloo mi nekk mbooloo mu bare bari jóge fu ne am lislaam daa soxla loolu rawatina bu nekkee foo xam ne faa nekk ñeneen nit nga xam dañuy bëgg booy julli ji fi ngay jaar bu bokk boo dëppee boobu siyaasa bu rafet la woon ci noonu lislaam yi ni ci dëkk bi xam ne lislaam am na doole boo bu ko njëw a song mbooloo bari romb la ba dëppee nga gisaat ñeneen mbooloo daal di ne ah bari nañ kat ak yu demee ak it ñu wax ne barab yi ngay romb dañ lay seere saa booy dem di jaamu yàlla ak boo jaamu yàlla booy dëpp foo romb dalay seere ba lay karam sa borom ay jubluwaay yu bari wax nañ moo tax ñu santaane ko kon loolu ko defee ñëpp teew di tudd yàlla nag dañu bëgg saa boo xasee génn fekk jant fenk rek tàmbali di kabar allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi bukratan wa asila kabar yàlla ba àgg jullikaay ba di ko def ba imam ñëw ñu dagg lépp imam bu agsee rek ñu daal di kabar julli julli ñaar rakka yoo xam ne kabar rakka bu ñu day kabar juróom-ñaari kabar jàng faateeku saar kabar ñaareel mu jóg kabar juróomi kabar bu jógee jàng saar bu sëmmalee xutba waar nit ñi fàttali leen su ko defee ñu daal di yeewu bu noppee nag moom imaam ren di am xaram day bëgg mu yóbbaaleem xaram ci jullikaay ba mm-hmm. ñëpp sax lañ daan wax waaye xëy na jafe-jafe jamono xat-xat laa jotul loolu wala boog yomb yombut yombagul noonu mm-hmm. waaye moom na yóbbu xaram ba bu sëlmalee ren di ñu xam ne ren di na ku àgg këram rek mën a day def sunnaam ndax dañuy tere ku njëkk ren imaam ni ñu ko waxee woon sànq loolu bu ko defee ci ci ci biir julli gi rek limaan waxtaanteeg nit ñi soññi leen waar leen fàttali leen bis yooyu ñu xam ne mooy bis yi gën ci at bëccëg yi mi waxee sànq bëccëg yi gën ci at mi dañuy wax li ci dayee ci ay jaamu yàlla dajëwut ci jenn jamono hmm. dañuy woor bëccëg yooyu ci la aj màkk di amee ci la ñuy tabaskee yow mu arafa bi gën ci bis yi ci la nekk ay jaamu ummahatul ibadat moo ci daje waaw loolu moo tax ñu ne bokk na ci li gën ci at kon yooyu yëpp ay passé la bu ko defee nag ñetti fan la it ñu xam ne bu tey dee tabaski it suba ginnaaw suba ci la bokk hmm. ku mënta ren tey bu suba wala ginnaaw suba ci la bokk bu ñetti fan yi jeexee nag tabaski loolu jeex kon daal mooy jaamu yàlla gu am solo bu sim la waaw bi ci des sit nag bis la boo xam ne dañ caa bëgg taaru hmm. sol ca lu yees it nag moo gën hmm. ajjuma sol ca lu weex moo gën donte lu màggat la waaye bisu it donte lu ñuul la mu doon lu yees moo gën bisu it moom bisu toilette dañuy bëgg nañu toilette kenn kenn ko si kañ kàttan nag amul lenn lu santaane loo xam ne sant na ko ku ko mënul mm-hmm. laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha mm-hmm. kon li ñuy wax lépp da fekk nit ki man mm-hmm. moo tax dañuy wax ne bis boobu càngaayal yi ba tey wuute na ko ajjuma càngaayal ajjuma aji julli ji mo lay lay sunna ci moom mu sangu ki ajjuma warut sanguloo wuñ ko bisu it nag ñëpp lañ bëgg ñu sangu ndax càngaayal bis bee ko sang gone yi sang mag ñëpp sangu ñëpp dafaru toilette ndax lan bisu mbégte la bisu iid la terewuñ ci it nag pomu dagan yonent bi alayhi salaam bisu iid ñëw na soxna Aïcha radiyallahu anha ne ci këram ay gone ne fa di di réyti noonu laa ko mën a tudde yor ay tuxale di way ñi ñi ñi ñi dafa ay yëf seen yëf Seydina Abubakar dugg ci ay mel ne ku jaaxale daal leen di gëdd mel ne jàpp ne li ñu def daal kii wut Seydina Seydina Muhammad jóg ne ko bàyyi leen ayit la bàyyi leen ayit la kon dañ ci xam kon po mu dagan ay gone yi foo ko bëgg terewul ko ci bis ba it kon yu mel noonu it euh, bis bi euh, lislaam day bëgg ñu feeñal ci mbégte moomu moo tax lu mel noonu it deko naa ne euh, di ci bàyyi xel baax na lool te tënk daal mën nañu wax ne loolu mooy mooy xëy na xëy na li ma ta bàyyi loo xel mbokk yi rek mooy mm-hmm. léeg-léeg gis kër goo xam ne xar yi bare ba dañ fay dañ leen lewetal bu fekkee ne sart yi dajeen du yàq nañ xam ne du yàq donte nag menn xar mën naa doy waa kër waaye nañ xam ne jaamu yàlla ki ko man amul benn lor jum ko tegal man maanaam àgg na foofu mu def ko ngi jaamu yàlla ndax du yàqu man si na ko denc ba du yàqu boo ko saraxee mbooloo mu bari ñi ngi fi ñu ko ajoo boo leen ko saraxee mën nga koo rey moom tabaski bi saraxee yàpp yi am tiyaaba kon bu jàpp mukk ne xar yu bari yi dañ ko war a tari xëy na yàqu ko lañ war a tari waaye mën nga koo defar am tiyaabay tabaski léegi nag seet ñi ko aajowoo nga sarax leen ko wala nga ñaari yiw yiw dundal nga sunu si yonent bi alayhi salaam ak saraxe nga dimbale way néew doole yu bari ñu mën a am mbégte ci bisu eet loolu bokk na ci li njëriñ li li am solo rek mooy nañ fexe ba ñi ci ñi ko aajowoo jot ci waaw ginnaaw yàlla def na tawféex aw ñam nekkatul aajo noonu kon bis mel nii nag fexe ba ñi néew doole ñoom seen aajo di faju lu ñeen mën a dimbale gën a dimbale moo gën lu xar yi bari bari baax na waaye nag nañ fexe ba jox ko ñooñu tasaare ko ci njaboot yi ñëpp am mbég ci bis yi jërëjëf sëriñ bi euh, tontu yi am na solo lool mu mel ne euh, waxtaan bi am na solo waxtu bi sax euh, am lu ci tege mm-hmm. su ko defee dañ lay jébbal nga tàggatoo. waaw di sant del di sant rek baax sëñ Abdou Lahad ci liggéey bu am solo yu mel ni am na solo lool fàttali nit ñi ndax diine laayante biir la diinu nasiha mm-hmm. nasiha nag mooy nga wax nit li koy jariñ moytu loo ko li mm-hmm. faw ñu bàyyi xel ne yii nga xam ne ay jaamu yàlla la mm-hmm. dafe ko niñ ko santaane dong ci lañ jëriñ nekk saa bu ñu ci dugalee aada wala ñu dugal ci bakkan noppi dañ cee jëriñ tabaski daa bari fu muy lore ñoo xam ne aada ji day tax nekk day soppaliku dootu nekk rek jaamu te bokk na ci sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu li li ko taxoon a jóg tàggale nit ñi ak i aada kama yurabbihi bi tarkil aada xam ne lépp looy defati de doon ibada waaye du nekk aada loolu moom jàpp naa ne lu ñu wat a bàyyi mat a bàyyi xel fi ki ko def man daal na koy def teg ko ci niñ ko santaane lu ci jaamu yàlla ki ko mënut na xam ne dara fekk ko ci du sikk du ayib ñu dul jeex ci gaañu baax ñi jaar nañ bu jàll mosu ñëw tabaski foo ñu dara ci seen dara hmm. kilifa it baax na dimbalee nit ñi ci lu mel noonu waaw fexe ba soññ nit ñi ñu xam nag ne dayo bi ñu ko jox aggu fa kër yi ci tas jëru gone yi ci mere seeni waajur jëru kooku mënut wàcc na daal laa bàyyi la xel sama bopp sëñ bi di ko xel mbàkk eh, di ñaan ñu àgg ci jàmm weesu ko jàmm te liñ cee def lépp yàlla ko yàlla nangu te barkeel ko te ñu teew ak at yu bëree bëri ci kanam suñu kilifa yi tedd yi Cheikh Mouhamadou Mountakha kilifa yu baax yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane eh, waxtaan wi ak laaj yi nga xam ne moom lañ indi woon leer na lool am solo gi it foo ko takk weesu na ko. kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom gën laa kattanal gën a gën a leeral dënn ba nga gën a mën a jariñ diine te mu yàgg lool ànd ak wér barakatu xadim rasul su ko defee kon bokk yi ñuy doon seetaan tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne incha allah seen émission gàggantiku fii lay yam ñu ngi leen di dig daje incha allah ci beneen numéro ci weer yi di ñëw di leen sant di leen gërëm di sant Serigne Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne moo doon réalisé émission bi ak Baye bu Bousso di leen mm, sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam